jooy ngaa jooyee jooy ba nduroo toon ah longo neex na waaye koo bàyyi mu dem ak mbagga jom moo ko fi moom laa bëgg man balaa maa dee mu naan mbëggeelu indo lañ bëgg man te ma laa wax na yow li nga bëgg du ma la seetaan nga def li nga bëgg a def nii man bëgg naa nga bàyyi lépp li nga jàpp jéem a vérifier problème bi xam nan la demee quel que soit alpha yow puissance da ngeen a dund pendant des années mu bëgg la nga bëgg ko ngeen di ànd mu muñal lu ne nga muñal ko lu ne kon man lii sama devoir man mooy ma wax ak yow su ma la gisee ngay def loo xamante ne doy waar ma taaj la wax ak yow yow sama mag nga te sama xarit nga. namaste ngay dund ak moom. maman yow nit nga maman yow fi ma jaar ak jom ump la commencement ba lépp xam nga ci dara lu ma ci gën a métti. jom dig ma fii tàq ma wax ko suñu wa kër wax wa dëkk bi yëpp mu jëkkee kër ne ma mënuma laa tax fu mu ko tek non sëg man dafa am lo xamanteni ni man mënuma moko toloré man bugguma nga may ñaan dara ma koy bañ mais da nga imaginer xol ni affaire yi demee yow sama mariage jagsi na ba paré té épi puis wax naa ko ñima ko wara wax wax naa ko ñima ko war a wax aduna bi yëpp yëg nañ ko 4 jours mo ci dess tay ji ñu indil ma ëmb mais lan mo tax mënu mo wax dafa ëmb ba paré mom ndekete lu ñu andi yëpp moom mu ngi doon su suuf di def lu ko neex ndax xam kon fii ngay xam ne kii yamul woon ci man kii mais bu moo ko taxee du yam ci man ëmm nañ ko jiñ. dañuy dem fii fu leen neex nekk ci lu leen neex ba dara desul lu dul takk ñu ne la tër bàyyi la fi. yow dem na bàyyi la te yi dañ fay nekk di yàq tamit bul fàtte loolu Youssou Ndour woy na ko. nit dina la jege fekk sori na la. xoolal lu gën sama xarit nga quoi bëgg ma nga may ñaan may bañ. mo bay mo bay mu sedd quoi. mané sa sama yaaka tass na ba paré xam nga yow mo yalla mo def len mo sama xarit nga sama mag nga ne sama xarit nga yu da nga imagine tay ji li ko dal mom buma dalon kon danga may abandoné da ngay dem bàyyi ma. mais na moko deug mais lan motax tax mënu ma wax est-ce que vérifier nga ko est-ce que yow essayé nga comprendre tok ak mom wax la deug non ki moko wax fenu mo parce que tay gis na ni mom dafa xawa a teyal ba nim do ñewé calé sa sax da koo wàññi naxuma quoi. yoo xam nga ni jigéen am na moment bu muy toll parensaay mooy loolu yooyu noonu yëpp da koy arrivé man daal sama sañoon lii nga décision bii nga jël nii ne danga koy def di nga vérifié waat bu baax a baax nga xool li ngay def parce que dëkk bii dafa toj de. yow loo gis léegi ma dem këram xool. pourquoi pas demal këram. jom laa bëgg bëgguma leneen man maa bëgg jom wala tey jom lu ma def ma yaakaar ci moom yaakaar ma ma bàyyi sama lépp ndax moom sama lépp laa bàyyi mu na ma taxatuma te xaw fu ko teg. mané yow ñom nii lañuy def dañ lay bëgg nga yaaka ci ñom ñu ne la teur bala fi séti lenen kon yow tamit da ngay a lenen han ah joy yi nga wara bayyi nak arrêté sa joy mel nga melon yaangi ngi jongo ma ba bëgg a dee ah. salaamaaleykum. so va ni ngeen def. ñu ngi si jàmm. ñu si xaaral ma bàyyi leen ngeen toog. noonu toogal ci nga moom. mën naa leen a bàyyi ngeen nemmeekonte. non toogal mais Zé. Zé tey dama ñëw pour bëgg a xam si ñaata weer nga toll quoi. samay âge nga maanaam sa ëmb bi. sama biir ban. ci ñaata mois la toll. man ëmb man. kii di ko gis ak toogaayam bu yànj bi nga xool ko ba seppali ko di ko jiñ ëmb. eh xoolu fi yow eh. kii dafa ëmb walla ëmbul. mais Diop yow tamit nag man su ma ëmbee kan moo ma ah, doy na waar ah, yow génn xanaa nga laajte ko ko. yow laa yoo xam eh eh ma fii kii dafa ëmb walla ëmbul. kii de dara jotu ko nii daal laa ko fekkee mu dara jotu ko. non non non non man man waaw non man damay bëgg a waaru wala damay bëgg a jommi. yow du yow laa dajal barke dëmb fii nga ne ma kii dafa ëmb mu ngi toll ci 4 mois ou moins 5 mois. waa waaye maa ngi nii daal di waaj sama xel rek xanaa. Ah, tamit ba am lu ma ci yokk lu tuuti te bëriwut puissance dafa ëmb ba am 3 mois. di la ko nab. yow te nag lu ci gën a doy waar day sëy ak ci kaw ëmb yow loolu lu la leer la yow. fii laa ko teg. Ah, dafa ëmb. nee na day sëy ak ci kaw ëmb bi te loolu lislaam da koy aaye. te nag loo ci xamul benn waaye jóge Amérique yor lu jeex mu topp ko rek fu waaj a dugg mu dugg fa bu waaj dugg mu dugg fa ba waaj a enceinte ko dem ëmbal laa la wax de ci kaw gàttal trois mois. nga bëgg fee toog léegi nga naan ma ëmbul. yow ku lay xool na naan da ëmb. maman man maa ëmb maman maman su ma ëmbee kan moo ma ëmbal. tëb tëb tëb yow ne sekk nekkul loolu de su may wax duma ko tey sama làmmiñ bu ndaw bi ci biir mooy génnee wax ci bi mag bi nag waxagul ba. loolu yëpp maman kon bu mag bi su waxee nu muy mel. dafa yomb quoi. yow nga def lu ne we nga tok fi osé di wax yow da nga am lo wax yow. yow Alex non ma sa na bu eh eh. Ya, eh bu mag bi de de bu ndaw bi bi ci biir. yow le ben affaire la bu nga ya, xam bu weesoo tay bu mu la gisati fii waxantuma la nak mu lay di téléphone est-ce man senegal léegi man man dama wara a tuxu man man fa la wara dem man mais rew bi toj na. Ya, yàq fen guddeeg bëccëg di yak der fu ne mais pour lan. buma yo ak fuñu jaar ak lima la defal ci kër aduna mama luma xam wax la buma am may ya la mama yo ya wara dem si yow ci kima bëgg nga ne dama ëmb maman nag bu ma ëmbee xanaa yow yaa ma ëmbal. xolal ki xolal noy def ak mom rusna la nak trop. eh jogal yow. Yo, yeah. What?